bismillah fii niin ak daala yàllaaw safi baqa abi bi fiq yàllaaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yi mbokki julli fi teew yëpp ci yitte ji nga xam ne si njëkk day yitte Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha li tax mu yitteem fii Cheikh Mouhamadou Bachir mu sëñ Abdoul Khadir moo toppatoo suuf si kem ni ko wajjur yi mu daan defe dem ci àll gor ko ngir bëgg faa xeet li jullit ñi ku ne xam na ne euh, sum kilifa yi ku ci ne fa ay toolam nekk ba mu koy wut wut teraanga rek taxut ñu di ko wut ndax koo xam ne foo nekk la nga mënta ñàkk di la fa fekk sooy wut àll bu mel nii di ko gor bëgg a li doomu aadama yi rek moo tax bëgg suqali koom-koom réew mi xam comme bu amee koom-koom rek kenn ku ci ne am nga ci wàll te sëriñ bi li mu daan dénk mooy bi ci njëkk mooy ñuy jaamu yàlla bi ci topp mooy ñuy liggéey kon loolu bëgg dimbali nit ñi eh, bëgg leen a wutal ngërëmul yàlla ak bëgg leen wutal teraanga yi tey Euh, moo tax ak ëllëg Cheikh Bassir mi itam loolu mu ñoon fekk way jur yi mu nekk ci rek loolu la yeesalaat tax mu wut suuf si jégal euh, ko Cheikh Mouhamadul taxa mu jox ko tur wi tuddee tool yi xisnul abraar euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha itam ci yitteel gu ko liggéey bi yitteel ci la ma jël man mi yónni moo ci Cheikh moom Bachir ci luy tax liggéey bi sotti mu yónni ma ci moom mm, ay teraanga yu ñëw ci liggéey bi ngir bëgg liggéey bi rek mate mate sëkk Cheikh Mahmoud Bachir sax moom bëggutoon sëriñ bi def ci dara waaye yéen a jëm am ci Cheikh Mour Muntaxa ak ñeewante googu moom la Cheikh Mour Muntaxa itam am ci moom euh, ndax bi mu yónnee ci moom bu noppi itam dama jox ndigal ci ne nan soññi waa dëkk ba ndax Daaru Minam Saloum dëkki sëriñ Muntaxa yi Daaru Minam Saloum moo fi gën a jege ñoo ngi sant nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bàyyi seen seeni liggéey bàyyi seen i seen nekkuwaay ñëw ci wuyu si Cheikh Mamadou ci liggéey bi ñu ñaan yàlla mu nangu seeni jëf kenn ku ci ne aaju jëm fi indi suñu borom fajal ko ko kon nag sëñ Muntaxa moom ku ne xam na ne lu muy dugg lu ne yéene waaleen na ci ñépp yéene waaleen na ñëpp waaw loolu moo tax ginnaaw man xam naa yéeneem ci liggéey bi ndax Euh, jëfam jëf daa bokkut ak wax te jëf la ci tàmbulee door noo digal ñu soññi njaboot gi ñu àndandoo ñëw ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw Ousmane Ndaw lañu ma yoo man nag jëwriñ sëñ Abdou Karim la mu sëñ Fallou borom Makarimal Akhlaq waaye dañoo bokk ak jàmbaar yi nga xam ne muy sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne leeru sëñ Moustapha Bassirou la te mu féetee Saalum Kaffrine moo ñu jox ndigal ñu ànd ak moom ñëw ci liggéey bi tey liggéeyu sëñ Bass Abdou Khadir bi waaw ci ruuj mi waaw xanaa am mbégte rek xanaa kay ab murit dafa fekk ne sa sëriñ su la soññee ci liggéey bu mel nii dañoo ah, yéene rek dimbali ñu ak ndimbal dong la ci jublu moo tax ñu am ci mbégte lool fas yéene ànd ak moom ba liggéey bi jeex su ànd ak dogalu suñu borom ndongal li mi ngi tudd Abdoulahi bajaan moom Cheikh Abdoulahi mbay Kéré mbooloo mi àndal ñëw fii mbooloom Cheikh Abdoulahi Mbaye Kéré moom Serigne Abdoulahi mbay Kéré moom Serigne Makhtar Mbaye Kéré soobu ci liggéey bi ni ko Serigne bi bëgg rek ñu fas yéene doxe doxale ko noonu mooy gaji geer yi déjjati ëkk yi leeral ko ba mu leer ni mu kem ni ko bëggee noonu la sababoo ñëwee. positif rek ndax ñun amuñu ak bëgg akuk bañ li Serigne bi bëgg rek loolu mooy sunu bëgg-bëgg li bi bëgg rek mooy sunu bëgg-bëgg te Serigne bi ko jox ndigal it liy bëgg-bëggam mooy ñu ñëw defaral ko tool yi te amuñu ku ñuy déglu ku dul moom mi di Cheikh Abdoulahi waaw ndigal pas-pas boobu rek it moom la ñu am ngir ni ko sëriñ bi wóoloo ba teg ko loxoom ci loolu ñu ñëw jëfale ko noonu rek loolu mooy pas-pas bi. waaw liggéey bi rek buñ fi dee dëkkit nag dañ fiy dëkk di ko liggéeyam waaw incha allah. mbokk yi ñuy seetaan nuyuwaat nañ leen ginnaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér. mbokk yi ñu ngi fii ci Hisnul Abrar di tool yi Serigne Bassirou Mbacké. moom Serigne Abdoul Khadir yi nga xam ne mu ngi nekkee ci biir Jolof ginnaaw ranch de Dolly mu nekk tool yi nga xam ne door nañ liggéey bi depuis euh, lundi depuis le 7 mars 2022 nga xam ne taalibe ñëw nañ tey jii ñu nekk ci juróomi juróomeelu fanub liggéey di liggéey bu am solo boo xam ne taalibe yi bés bu ñu xëyee ñu ngi ciy def Pastef ñëw ci tool yi ngir euh, jëlee fi li nga xam ne moom moo di ëkk yi euh, setalaat tool bi gor garab yi lépp rek ngir waajal tool bi ruuj ko defar ko ba di nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee moom sëriñ Bassirou Mbacke moom Sëriñ Xaadir mu mën koo amee noonu moom moo tax euh, incha allah gis ngeen taalibe yi nii suñu ginnaaw nga xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi nga xam ne naajagul sax euh, daanaka man su ma xoolee li nga xam ne moom moo di euh, suma montre daanaka fi mu toll nii mi ñu ci ci 9 vingt 24 nga xam ne xëy nañ bu yàgg. liggéey bi nii lañ ko koy wéyalee nga xam ne dañuy dem sax ba yenn saa yi añ sax daanaka mën na leen fekk ci euh, tool yi lépp rek ngir bëgg li nga xam ne moom moo di bëgg bëgg sëriñ bi ñu defee ko ni nga xam ne noonu la ko bëggee kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen ñu dugg ci biir tool yi xool ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, taalibe yi niñ nekkee ci biir liggéey bi waaye jël réaction ñenn ci jëwriñ yi nga xamante ni fekk nañ leen fi ñoom it euh, ci liggéey bu am solo bi xam naa kenn ci ñoom sax sëriñ Mamour Mbaye mi ngi nii Euh, tey moom xam naa ne euh, ku la xool du ne euh, animateur bi la gis wala présentateur bi tey taalibe bi moom moo ñëw ci tool bi liggéeyal Serigne Touba ndax fépp fu mu murid nekk rek ambassadeur Serigne Touba la fa rawatina bu ñu ñëwee ci tool yi nga xam ne dañu war a liggéey Serigne bu baax baax ak casquette bu ñu mënti yor Mame Mor bi nga ñëwee ci tool yi lan nga yëg. jërëjëf maa ngi ziar bu baax a baax mboolem téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi. yàlla dogal na altine ba tey wax nga dëgg noo ngi fi waaye danoo namoon ay tool lii noo ko gëj a def ca jamonoy Serigne saaliw xam nga sax Serigne Cheikh magi sëñ Basirum sëñ Abdou Khadir nga xam sëñ Cheikhum sëñ Abdou Khadir sëñ Cheikh moom Serigne saaliw ku ne gis na ko ni ñu ngi ci tool yi waaye ñoom tool yi ñuy nekk mooy dañuy ruuj dal di daal di bay woonu ci ndéqi wooñu ci jëri wooñu ci ngóob waaye gor gor moom ñu ngi ko gëj a defee ca jamonoy Serigne Saliou waaw mu mel ni benn benn benn mbir la woon bu ñu ngombe woon ba Serigne Bassirou Serigne Abdou Khadir moo tijji ngomb bi tey boo gisee murid bi ñuy ñëw fi mu nekk ku dugg ci internet bi li ngay mooy lu tax yëguma ko xoola lu ñuy def léegi machine da koy def mais lu tax murid yi indiwunu machine ne ñoom ñooy ñëw fi mu ne ñun ñi ñëpp bu loon a gants yi yàq suñu loxo yàqu na mais sedd bi mu nu indi ci lii la mag ñi amee ngërëmu Sëñ Tuubaa ñun ci loolu la ñuy sàkku di déglu ndigal rek suñu waxee bayil ma bay suñu waxee liggéey liggéey ñu déglu ci suñu bay dang waxee bay leen ñu bay wàcc leen ñu wàcc <laughs> ñu déglu ndigal rek taal bi moom ndigal rek suñ Bass Abdou Khadre allah taxawaay moom rafet na lool ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax rafet na lool ci liggéeyal suñ Tuubaa bi waaw macha allah moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko fi waaw bu ñu demee ba mujjum jamono nga xam ne jamono ji dafa yëngu ñu lay xëyloo ci liggéey suñ Touba di la ci gontuloo kon war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax a baax moo tax ñu ngi ñaanal eh, suñ Muntaxa mu yàgg fi lool di ñaanal suñ Basiru mu yàgg fi di ñaanal suñu jàmbaar muy Cheikh Ismaïla Diouf yal na ko fi yàlla yàggal muy liggéeyal Serigne Touba ñu nekk ci ginnaawam di ko liggéeyal waaye xam ne suñ Touba morom rek te xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Basir moom mooy lépp moom mooy Serigne bi rek ci ñun te mooy sunu bunt ci Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal mu yokk te yàgg te wér waaw ci kàttanu suñu borom ak tawfeexam te xam ne fii ku fi ñëw rek maam sëñ Tuubaa nga liggéeyal ndax moom sëñ Tuubaa rek la léppam sëñ Tuubaa la bëggam sëñ Tuubaa leer na ñëpp te xam na ni moom léppam sëñ Tuubaa la moo tax ñu teew bisam bi te duñ ko yemaleeg leen waaw fu mu ko woote ñu jëm fan waaw en tant que taalibe daal wax dëgg yàlla sant nañ suñu borom ba mu ñu dimbalee bañ fekk liggéey bi ci kattanu yàlla ak mbaaxam bañ fekk liggéey bi di ko jëfal yàlla ñu ko nangul ci mbaaxam ak tawfeexam bi yàq alxuraanu karim yàlla na yàlla defal ko tawfeex guddal fanaan wéral cëram bi yàq alxuraanu karim waaw sant nañ bu baax waaw manam i santo sign ismaila ino fog sereer waaw ndax kat i njegay ka andoona yee o leŋ jegiran i mban o santito a roog to i ndama o lay ba ibrahima sene leydu yee ka faak te ref o xane koni mbara mbeta ɗoxo faak laam xane leŋ ke leŋok mbi'una leŋ ndamnu kene ku ta re'na ranga ko yok bo we etna na Sëriñ Tuuba xe dara den xa tax ɗune ka ligeenogi Sëriñ Tuuba kon fat i ndakwiid ligeano Sëriñ Ismaila ngir i ndaabo a faak kene te ref o njiriñ sant o Sëriñ Ismaila nqeɗan ta mime lool to a wod laamkat wiin june o fokatan no qol Tuuba na Sëriñ Ismaila rek o ta jegtu yaakaar in xane o feet o leŋ kut Olenkut na da Sëñ Tuubaa ne na da Sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatulah. kàddu yooyu daa mel ni sëñ Mountakha Ndiaye moom xamu ko xam naa naa la ko tekkil incha <laughs> jërë ngeen mbokk yi ba léegi ñu ngi fii ci Hisnul Abrar ci tool yi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir yi nga xam ne mi ngi nekkee fii ci biir Jolof euh, liggéey bi di wéy xam naa nag euh, dafa laaj tamit ñu leeral ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñu xam bu baax a baax suuf si fan la jaar ba agsi ci Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir ak tool bi ni nga xam ne noonu la yaatoo ak liggéey bi nga xam ne moom lañ fi def ñu ci euh, dalal Serigne Fallou Galassila ñu ngi leen nuyu di la ziar Euh, ñu bala nga nuyoo rek nga enchaîné waale ak euh, suñu question mu jëm ci suuf si fan la jaar ba tàbbi ci loxoy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre jërëjëf sëñ Fallou maa ngi lay nuy di la ziar di nuyu eh, sëñ Fallou mi nga jàkkaar lool eh, seen ko wax ak yéen mel ne kon ñetti Fallou ñoo jàkkaarloo bii laaj Fallou la bii tontu Fallou la bii cam bii filmé Fallou la eh, loolu bokk na ci xar baaxi tool bi waaw liggéey bi mën naa wax ne tool yi bas sëñ Bass 2011 2012 jëpp 2013 la ko tàmbali woon di toppatoo yebal fi benn doomu nijaayam bu ñu wax sëñ Alaaji Fallou Bousso moom sëñ Abdou Karim moom moo doxoon diggam ak suuf si mu di ko lijjanti comme ni ñu baaxoo di lijjantee suuf dem ca communauté rurale ba def ab demande bind ko jox leen ko mu def ab demande bind ko jox leen ko ñoom ñu dem xool ba xam danañ la war a mën a may wala duñ la war a may laaj la li nga fi wëgg a def lu mu doon lan nga fiy def ba nga wax leen ko lu leer nañ ñu ñu ànd ak conseil dem daje nga yónnee leen jox la nga war a jox conseiller conseiller daje wate ko ba ne may nañ la suuf buñ la xasee may suuf it daa desaat yeneen beneen lijanti mooy def délimitation délimitation ñoom conseillers ñooy ànd ak commune bi def ko bañ defee délimitation ba noppi nag mu des ay bornage ñaari façon bornage am na loolu lépp ab lijjanti lay doon boo xam ne da nga koy jaar ci fi nga ko war a jaar Eaux et na ci wàll mairie bi na ci wàll euh, préfet am na ci wàll gouverneur am na ci wàll loolu da koy topp ba ba ngay dem Louga ca gouverneur ba bañ defal la ay kayit yu leer nañ ñi nga am droit nag soo a mën a ñëw ne danaa jël sama suuf soo ñëwee ba war a jël suuf si day defaat beneen lijjanti lijjanti bi mooy dangay ngay ànd ak Eaux et Forêts ñu wër tool bépp xam garab yu mag yi ci nekk ñaata la ñoo la bala nga koo dagg da koy fay ndax kenn du dagg garab ci àll bi looloo tax nga ñuy jàpp eh, ñi nga xam ne ñooy dagg garab yi buñ ko wañ wëree tool bi xam ñaata garab la Cheikh bas dafa génne waat xaalis ñu dem fay garab yooyu daanaka à bi ci ne kon maroon naa jege 4 millions kon mu fay yi boo ko fayee ba noppi nag lañ ne la may nañ la suuf si wutal nañ ko kayit fay nga garab yi am nga ci wala na ci yow léegi li ci des mooy nga nga fay ànd ak waa EOFOR ñu defal la borne wañ lañ la may bi mu ànd ak waa EOFOR ñi liñ ko may 12 kilomètres carré la wet gu nekk 3 kilomètres la suuf si ci boppam da ngay jóge Touba ñëw Sadio ñëw Gassane jóge Gassane jëm si Thiel boo ñëwee ba tolloog buntu parfo bi buntu bu njëkk bi moom ngay topp at rance de doli bi boo àndeek moom ba ci buntu bu mujj ba ci wetu gànnaar gi ba féete penku digganteem ak tool yi un kilomètre lay doon foofu la tool yi tàmbalee sës ci euh, ci rance rance bi bàyyi Thiel ci euh, euh, Saalum gànnaaram mu nekk foofu nag. suuf si itam bi Cheikh bas jotee da koo daal di nag woote nga xam ne kon lijjanti bi mën na fukki at ak nangam bi mu jotee ne la sa ko am ndigalul man koo woote la ko mu santaane ko ñu ñëw fi altine eh, talaata àllarba alxames tey di ajjuma ci la Cheikh ba Basir ñëw seet si mbooloo mi gajj nañ fi un kilomètre cinq cent un kilomètre cinq wet gu nekk lay doon am na ci sax côté boo xam ne far na jàll six kilomètres yëpp dañ koo gajji ndax mbooloo mi ñàkkoon a xam dëgg-dëgg li ñu war a def biñ gajjee lépp nag ba àggal mu des fi ñu war koo taal dindi nañ ëkk yi dindi nañ yenn garab yu mag yi ndax suuf boo koy liggéey it boo dindee ëkk yaag garab yi yëpp du ngelaw li duutu am lu ko téye loolu day gaaw a sappil suuf moo tax ñu bàyyi fi yenn garab yi ak yenn xur yi ndax mu mën di téye ngelaw li ak suuf si waaye noppi na ba nga xamante ni daal ku fi bu tawoon bu ñu fi indee matériel mën fee liggéey loolu nag euh, moo ñu fi indi woon daara ji mi ngi tudd Hisnul Abraar Serigne Mouhamadul Mountakha moo ko ko tuddee tuddee ko Hisnul Abraar Thiel lii daal mooy liggéey bi yàlla dogal na liggéey nañ ko ci juróomi fan lépp noppi na ñoo ngi xaar sëriñ bi ngir bu mën a ñëwee wax ak mbooloo mi. jërëjëf euh, sëriñ Fallou Galass la ci leeral yu am solo yoo nga xam ne moom la def fii ci tool yi Hisnul Abraar yu sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadir dégg ngeen euh, fi nga xam ne fa la tool yi jaar ba tàbbi ci euh, loxo yi sëriñ bi kon liggéey bi mat na taalibe defee nañ ko ni nga xam ne na la ko sëriñ bi bëggee ci diirub juróomi fan yi ndax liggéey bi ñu ngi ko tàmbalee le 7 di altine euh, le 7 mars 2022 tey jii ci aljuma ji euh, liggéey bi euh, matt ñuy xaar Cheikh Mahamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke ñu koy ñaanalaat mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci biir tool yi ngir mu mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ginnaaw bu mu nemmee ko liggéey ba noppi fas yéene yëkkati ay kàddu ngir yeewi leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko fii ci Hisnul Abrar kon mbokk yi neskis incha allah da ngeen am kàddu yi Serigne Bassirou moom seen Abdou Khadre fii ci Hisnul Abrar ci tool yi nga xam ne mi ngi nekkee fii ci Jolof bismillahi fii niin ak daala yàllaw safi baqa abi bi fii ka yàllaw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 الحسين مرتباتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتباتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله أنت المي ثلاثي لا سبت عيسة خلال ويسا واحد بل فيك يا علام عسى المسل لاسي سلالي ستي الانس والجن سيطان يا الله انت سميع لاسي ناجت سمانا وبالمصارات لي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 fu mu toll di leen delloo ci tawhid loolu weesuut yi fi sëñ kon moom daa bokk ci miracle yi yi ah, ndax ku eh, fekk doomi sëñ Tuubaa fekk doomi sëñ seex si ne seex xam ne sëñ leen taaloon ngay diirante ak ñoom mbagg xam ne ne sëñ Tuubaa delluwut ginnaaw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 di ñaan suñu Muntaxa mu yàgg fi wér lool bu baax wax dëgg yàlla boobu ba tey Mbàkke mu ci tool yi di ñu dimbale di ñu won di ñu wax fi ñuy jaar loolu yëpp sant la ñun sant ataqi badalam bi wali kunta bi taamini ya Allah antal si antal amidul si وجدت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله أنت الولي لاسي لا أتقي بدلا بي ولي كنت بالتعمين يا الله أنت الأميد لاسي وجعلت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسي الخلق والأسياء جملتي sëñ bi moom ma boole woon ak moom yëgal ku liggéey bi muy Cheikh Ahmadou basir bañ waxtaanee ba naareel sëñ damaa wax ne man nag nanga ma waxal sëñ Bassir ne ko muy Cheikh Abdou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 أسمان دونا لك الوجود لاسي لبان يا الله يا ماجد النية دارين متليم بخير كبر وعجب ربي يا الله يا وايد النية دارين منفردا ما المنى بآسي انس منك يا الله يا واحد علي الدارين منفردا مع المنى بآسي سن منك يا الله لك التجائي بما waaw sëñ bi nag gannaaw bu la siyaaree sant la bu baax bég nan sa sanc bee noo ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa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

يعقليب أبي أقل وجملة ما لم ترللي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي xadik dafay tubi kon mbir maa ngi noonu xam nañ seen maam ja lan nekkoon ak sëñ Tuba ba muy ñëw ci Tuba ci Zahir moo ko ëppi daay bàyyi léppam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 rek fi nekk sëñ bi nag ñaan rek man daal li ma dese ak su néew nee na moom daal li mu dese ku su néew naa naa naa fekk luñ loo loo digle moom na fekk loo digle rek wala keneen ku mel ni digle ko rek gisuma dara lu ma dal fi waaw nee na mi ngi koy defaa gisul dara lu ko dal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 Amin.